اليقين صلى إلهي بالمناجات من لا يسال خذ لولا قصدتي قصدتي baaxat borom ji mo baye serigne Aliou Amar serigne Ibnu Amar serigne alim khawas Amar baye serigne Abdou Waxaab borom gi ne ya yew ya mana a yeewus gor bo dootu fa jóg ndax yow teraanga ngay yeewe gor yow pinti banta nga ma aa bay danongo Amar mami sering Xaar xaadim amar ah maam yi sëriñ Mahmadan amar sama waaji aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëfati cheikhul xadim jërëjëfati sëriñ Beyti Ndongo Joor jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridine asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziyaare di leen ndokkeel te di leen sant ci turu sëriñ bi di leen dalal ci seen teewaay ci dëkk bu mag bii di jéemul amaar muy capitalu Darmanko yi dëkk bii képp kuy Darmanko sa maam fii la njëkk a wàcc ci senegaal ginnaaw bi ñu jaaree Égypte ñëw Mauritanie dugg fii ci Kajoor ñëw Mbaxiis sanc suuf sii di jéemul jéemul nag ñi ko sanc te yonent bi sallallahu alay wa sallam ayubal ansaar ñoom ñi nga xam ne ñoo dalaloon yonent bi sallallahu alay wa sallam ca Medinatu Munawara musu ñoo xam dara lu dul jaamu yàlla seen boroom ak topp seen boroom ak wottu seen diine ak fépp fu ñuy dem rawale sen diine mo len fa yobbu ba suuf si nga xamne biñ koy rawale sen diine rek mo len fi indi musu ñoo def dara lu dul wuy ci sen borom ak deggmal sen borom ak jang alquran ak jaamu yalla ñom nak buñu koy wax duñu jéxal ndax bu ñu tàmbali woon ci maam Ahmadou Lamine di wàcc ba ci ki ci mu gën mujj itam ci diina rek lañ koy fekk suufu Kajoor xam na ñan ñooy darmanko yi Sénégal damay wax ni bu ñu amee indépendance ñaanu darmanko moo tax ñu am ko ndax ku ne xam na ni Jolof moo nekkoon capitalu Sénégal yilif Sénégal waaye la ko toj ci ñaanu darmanko la jóge kon dar maa koy ñoo ñaanal waa Sénégal waaye nag tey dafa am ku ñu fi tax a dajale muy sëriñ bayti ndongo joor ibnu maam gumba bint amar màggal gi li ko waral mooy daf fi bàyyi woon dem mbàkke bawol fekk si ki feeñ jamono tey lijjanti jamono te moom jamono muy cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul lu ay mën a am ak lu waay yor soo ko yoree te dëgmaloo Seexul Xaddiim loolu day des mu gis ko dem fekk ko Mbàkke Bawol jébbal ko boppam jébbalaale ko askanu darman ko yëpp muy Cheikh Ahmadou Bayti Ndongo Joor mu nangul ko ko ne ko delluwaatal fa nga jóge woon Kajoor danaa la fa seet si mu ñëw seet ko fi fii Njaarnde loo ko dëkk bu ñuy wax Bayti moo tax ñu ko wax Serigne Bayti Ndongo Joor kooku la ñuy màggalal tey bokki jullit yi bokki dëkkandoo yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seenum jaww di rafetlu seenum teewaay di leen balaax balwaat ñu ngi leen di dalal jàmm di sant waa dëkk bi góor ak jigéen mag ak ndaw adduna nag dafa am lu mu baaxoo rek moo ma taxaw di wax ak yéen Cheikh Abdourahmane ci laay ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm monsieur le préfet ñu ngi lay nuyu su pare préfet ñu ngi lay nuyu di leen dalal jàmm di dalal bokk yépp nag di ñaan saa borom ki nga xaay lépp tu nekk ak fépp ak foo mën dee ma nga fa rek ñu doolee sant sunu borom noo ngi leen nuyu di leen sant yéen waa dëkk bi ñu ngi leen nuyu di leen sant ak waa tund wi ku fi teew rek gis nañ la jërë ngeen jëf yéen mbokki taalibe yi ci seen kàddu laay wax ndax loolu lañ ma sant kon nan mbokkaat sant yàlla te góor góor te xam ne yàlla moom noppi na démb tey soog a xam ne képp koo xam ne ak taalibe nga boo xam ne dangaa yaakaar Cheikh Ibrahima Dior am na maa ngi lay nuyu di la sant di la ñaanal yàlla suñu borom dimbali la ci saayir ak ci baatin nu xam ne nag waxtu wu nekk sëriñ bi li mu doon wax rek mi ngi nu koy wax ba bi ñu ko nuyoo démb loolu la wax benn wax rek laay wax ak yéen man lay na ngeen xam ne ni ngeen ma yaakaare ni laa leen yaakaare seen jëmm jiitam barkeb sëriñ si def naa ko ne sama jëmm ji loolu nag la ñuy toppee kilifa defar looloo gën a jafe muy defar te ñun wóor nañ ne defar nañu defar gu wér gu nu xam ndax nit ki soo ko dee liggéeyloo di ko dawloo di ko doxloo lim lay liggéeyal bés bu nekk muy xool fi koy dugal du oto bu rafet du étage du garaaw bu te mënoon na ko am bu ko neexee waaye liggéey sëriñ bi rek ko ñor ak taali bi rek ko ñor ci loolu la ñu nàmpatal ci la ñuy dox la mu doolee góorgóorlu bu baax a baax a baax te xam ne mi ngi doog a baax te mi ngi bëgg a baax képp koo xam ne taali bi sëñ ay Yibra Joor amar nga na ngeen xam ne sas bi ko sëriñ Mbàkke sëñ Moussa Mbàkke Mouhamad sas ñëw la képp ku dugg taalibe nag ak foo mën a ne ak foo mën a jëm bala ngaa dem na nga dem sëñ Mourou Amar laaj ko mu jox la leetar bi nga xam ne mooy saw sas ñu liggéey ko ngir Sëriñ Tuubaa ngir Cheikh Moussa Mbacké Mahamad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu يسرني أن أسمع من صوت المخاطب قوله مذكرا إيانا إن الزعيم الشيخ بيت دونغو هو الذي نحيي ذكراه وأي ذكرى ذكرى يوم غادر بيت والده جارنده إلى مكة بول لا ليرى أي شيء ولا ليحصل على أي شيء بل ليبايع خادم الرسول بكي noo ngi nuyu ñëpp ci seen tur seen sant di wax ne noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala sëriñ Muntaqa Mbakke yàgg fi téwér Cheikh mi Dior mii sëriñ Bayti Ndongo Dior yàgg fi téwér nuy wax ne lu bégloo lool nu dégg mbokk mii taxaw wax ne tey li ñuy dundal mooy fàttaliku bis ba nga xam ne sëriñ Béyti Ndongo Joor ca la bàyyi woon daaray baayam bàyyi fa woy juram bàyyi fa dongay boppam bàyyi fi léppam dem fekk Cheikhul Khadim Mbàkke Bawal jaayanteeg moom kañ 1885 kon suñuy dundal loolu suñu waxee loolu danañu neex lool ndax ànd ba gën mooy ànd dañ ci suñu borom te kenn werantewul ne Cheikhul Khadim jamono ji mu feeñee ci àddina góor yàlla yépp jox nañ ko seen bopp ak fu ñu mën a lekk kon sëriñ Béyti Ndongo Joor ca la bokkoon ca bu jëkk ca jamono yooyu suñ koy dundal loolu dana nu neex lool may wax ne moom nag li ko boole ak barab bii nga xam ne ni ko mbokk mi waxee mooy sunu cosaan mooy la woykat ba doon wax ci dëkk bi ne دار بناها عباد الله قصدهم لا جمع مال من الملوك والخدم كرنجي دي جيم الغو خامني مان ني كو تباخ تباخون كو سي الال ولا ووت اي داك اك نيت ني لاي دي ليغيال موي ديفال نيت كو مانا ديم سي loolu nag du fi jóg ba mukk damay dégg ci jàngalekat bu mag Sëriñ Murtada Amar di wax ne bayit wi waa ji waxoon ci Cheikh Mouhamadul Murtada ne in kaana asrara min ahli lxadimi maan fa hammuhu wa himamul ixwaani kullihim doonte moo gën a ndaw ci njabootu Cheikhul Xadim soo dajalee ñu ko mag ñépp yitteem seen yitte day tolloog yitteem ndax yitte ji jenn rek la loolu nag laay wax ci dëkk bii ak askan wi ka gën a ndaw yitteem nekkul dara lu dul liggéeyal lislaam kon danañ bëggee lool suñu taxawee tey ne loolu lañuy màgg kon mbokk yi suñuy dundal loolu danañ war a delloo kon sunu tànk fa mu tegoon tànk te moo di dundal dund sunna sëriñ Béyti Ndongo Joor amul kenn kenn koo xam ne mas na laa naw ku dul Cheikhul Khadim te Cheikhul Khadim it dafa waxoon ne fu mu teggee tànkam mu teg fa tànkam ba mu ko gisatul la génn àddina kon mbokk yi ku am ku mel noonu di la màggalal nii nu ko defee rek la jàng alquran jàng xasaay tout tànk yi waxtaan ci diine fàttali nit ñi lan moo tax yàlla bindu loolu mooy màggalal sama mbokk mi nag day wax ne Serigne Saliou yow Saliou damay wax ne mënoo mënoo mënoo wax ci jataayu mbooloo waaye la man mooy xutba waaye nag fii moom xutba rek laa fi dégg ndax kàddu gu fi jóg xutba la te xutba mooy delloo nit ñi ci seen boroom ñoo ngi sant ñépp di gërëm ñépp di ñaan sunu boroom subhanahu wa mi nga xam ne mooy dogal lépp yal na nu nangul jëf ji nga xam ne dañ koy jëf rek ngir yàlla. di nuyu mbooloo mi jiital ci kilifa yi man sax dama daan wax ne bëgguma sax di wax waaye euh, toujours dañ may obligé ci wax rek waaye danaa gàttal euh, ñun fa ma daan waxee rek laay waxe ñun askanu ñeeñu yi nga xam ni sekk lañu sant ak géey ak jaam ak ñépp liñu ñu ak suñ jéemul ci cosaan la ba ñuy jógee ci dëkk yu sori ya ñoo àndoon li tax tey sama mag Mama sek nekk chef de village mooy ànd ba saayiran ak baatina rek la kon maa ngi wax ci turu Mama sek ak sama mag bu ñuy wax Alaaji sek bu fi nekk ak sama jeneen mag ñuy wax Papa sek bu Papa Moussa sek ki nga xamni bayam pap musa sek mom mom musa musaw yanul sëñ Aliou ak galam fi jóge jemul ba Touba sëñ biye ci fas mom muy dox lolou kon liñu bolé bari na kon ñing koy ñingi sant ñëpp di tewlu aussi exit tay ren ren ji ku ñu sëñ na Umar sek sama dom ak sëñ Mor sek ak Jibril sek jóge etats unis rien que pour màggal gi loolu aussi day wane ni ñoom amuñu lu dul jéem ndax murid yëpp ñoom ñoo bokk Touba de waaye ku nekk am na foo jóge door a ñëw Touba ñun nag jéemul mooy suñu cër fas nañ ci yéene def lépp lu ñu mën di ñaan sëñ Ibra sa borom fukk boppam di ñaanal ñëpp di nuyu sëñ Xaadim mii nga xam ne mooy kilifa jotaay ñett rek ñoo fi ñëw mooy mbokk gi ak wëllëre yi ak taalibe yi dëkk bi sori na lool naqari naa ñëw it waaye ku la fi fekk rek xamal ne fonk na la te yëg na la waaye nag dëkk bi ku yàlla nar dimbali rek moo fi ñëw ndax dafa xaw a naqaree ñëw muy dëkk bu bari baatin dëkk boo xëyee saa bu fi nit ñëwee rek bu la gisaatee ne la sant naa bu baax ndax seen dëkk ba de lépp lu ma fa doon ñaan suñ borom def na ko kon ñu ngi sant taalibe yi nga xam amuñu lu dul kër sëñ Bayti Ndongo Joor ak suñu mbokki bopp yi nga xam ñoo bokk jenn deret ak suñu wëllëre yi nga xam lu xew ñu jóg te ñooñu rek ñoo fi daje mbokk gi genn mbokk rek la yaakaar naa ne mën a gut xar ñaar ndax ñoo bokk Muhammadul Amin bokk sëñ Bayti Ndongo Joor bokk sëñ Touba muy suñu bokk ndax maam mi nga xamante ni moo sañcoon fii moo tax ba sañc dëkk bu ñuy wax Gàddiyal jóge fa sañc dëkk bu ñuy wax njaar Njaarle suñu maam sëñ Béthio Ndongo Diol dikkaat fii jéemu yeesal ko dëkk bi ñun moomuñu naari darman ko yépp ñoo ko bokk mbooleem taalibe yépp ñoo ko bokk suñu maam dafa ñëw delsiwaat fii yeesal dëkk bi kuy wax ne man jéemul maa ko moom walla maa ko war a moom rek da nax sa bopp dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk darman ko yépp ko bokk ndax menn maam la mu doon loo nag war nañ koy fàttaliku te di ko bàyyi ginnaaw ndax diggante bi fàtte xajagu fi ndax ñeent lañ woon muy seen mag sëñ Bayti Ndongo Joor ak sëñ Mama Joor ak sëñ Paati ak sëñ Ibra ak sëñ Omar seen rakk muy juróom yàlla dogal ñoom ñu nasu ci génn buum jël seen kilifteef yépp jox sëñ bayti ndongo du ñu def te tàgguwuñ ko du ñu dem fenn te dékkuñu koy loxo mu ñaanal leen ñuy diglu ndigalam di dox ci waawam loola ba tey mosu fee jóg bi ñu demee ba nga xam ne 1922 sëñ Paate Amar nelaw na ñu indi ko njaareem muy dox waaye teewut ñoom ñëpp ñu dajaloo def sëñ Bayti Ndongo Dior muy seen kilifa ci gàttal rek bi nga xam ne sëñ Touba jóge na fi 1927 sëñ Bayti Ndongo Dior jóge fi 1928 daanaka booba deseetuñ bàyyi benn bàyyi rek moo fi des muy sëñ Ibra ñoom ñëpp ñu féeteeg moom ku fàttaliku yàggul dara sëñ Ibra Dior moo dajale njabootug sëñ Bayti Ndongo Dior gépp dajale leen. danaka buñuy wax ne kajoor senu delu ca bawal ci sëñ Ibra Joor la jaar mu doon ko xey ne mujju ci njabot bi waye mu dajale njabot gep teelen ñom ñepp ñu def ko bàyyi ken rëccut ñom ñepp yit mo leen japp ci loxo jébbal lañ modou Mustafa bim leen di jebel ba si ci sëñ Abdou salam mom moko wax ci lamiñam mom sëñ Abdou salam ne ko man de bàyyi dama bëggoon man basirou di sama serigne mu ne ko ànd naa ci yow yóbbu ko ci sañ basir mu jëbbalu kon mag ña lañ doon dox ma nga doon dox ba tey mës sa deñ ndax amoon nañ kilifa daan ko dox ku fàttaliku yàggut sëñ Ibra Joor 46 la fi jógee yàggul waaye bi mu fi jógee bàyyi woon na fi doomam sëñ May Amar mu dajale njaboot gépp tee mosuñoo génn mosuñoo tumurànk kon ñuy dox ci kilifteef def ko muy seen bàyyi sëñ Aliou Amal mi nga xam it moo fi ginnaaw bi sëñ Mor Bayti moo fi wuutu sëñ Bayti ndongo joor ku fàttaliku yàggul yi ñoom ñëpp fa lañ daje woon sëñ Abdou Salaam sëñ Xawaas sëñ Mbay di nosu ci genn buum muy sëñ Aliou mu doonoon loo xam ku ci masaan gis sa rakk wala sa mag te loolu amatul tax léegi man sëñ Abdou Salaam ànd na ma ak moom mu ñëw màggal Touba jub sëñ Aliou su mi ay dàllam ci buntu kër ma jël dàll yi ŋàbbu mu dox summi mbaxanaam def ci poosam ma toog ci ginnaawam te loolu yàggut man fàtteegu ma ko ci nit koo bokkal bàyyi muy sa mag ak jamono ji léegi ni muy doxee nga xam ne daanaka da ngay gis sa baay tax sa baay nga gis ko jox ko cati baaraam wala mu toog nga ne nangu ca kaw man jamonoy samay baay man mosumaa gis loolu dama daan gis mu ñëw raam jox signal yu ñaari loxo boole nuyoo ko dara bu ko signal yu dalalee ci néeg bi mu génn jaar ci buntu ginnaaw ba dem siyaare sa ñim bu jógee doog a dem kër sëñ Cheikh Amar moom sëñ soxna moom soxna Binta dal fa doog a dellu njaareem loolu def na ko ay yoon di wane ak taalibe waaye léegi daanaka loolu yàqu na te li koy bëgg a yàq dong mooy ak bokk goo xamante ni ñàkk solo te loolu dara loolu dañ ko fee war a jëlee ndax mag ñi nosu won nañ genn génn buum goo xamee sëñ May Amar mii fi mujj nga xamee mës sa génn te rakam nekkut ci wetam toog wala sëñ ali tok te gisut sëñ khawas wala mu gis sëñ Ibnu wala sëñ Abdou salam ñu andando di def lool ñu diko dogal kon ñun dañu war nasu ci genn buum set ki nga xamanteni moy suñu kilifa ñu and ak mom te top ko te diko diglu te bu joge ñu jog te andando lool rek mo fi amon solo ndax mag ñi lool lañ doon dund kenn ku ne bëgg a gisatut sa da nga tey say rek bañ mel ñoy sa bay te loola ba nëgë ni fi mané def lool te yàggut dara kon dey ci gàttal dama bëgg a wax ne ñun man bokk ab taalibe laa boo xamee nangu naa kilifteef nangu naa kuma ma yilif nangu naa di toog ci suuf tey joxe sama bopp nangu naa di làmb di joxe te doon ab taalibe waaye jamono ji nii ma ko gisee day ku ko continuer bu bu ñu waxut ak ñoom bu mu dina yàq te daray àdduna jaru kon nañ boole suñu bopp ànd set ki nga xamanteni mom la yalla jital ñu jital ko ki ci top ñu top ñu tek ko ci te and ak euh, talibé yi liggéel sëñ touba lool rek moy li am solo li ci def lepp ay caaxaan la ñi ngi wax tamit ci turu suñu mag suñu jeewriñ Serigne Moustapha khawas muy nuyu mbolo mi di len ziar di len wax ni da nek rek ci la ko bàyyam bàyyi won digal ko ko muy liggéey ak jaamu yalla mo waral muy xaw di sori suñ beyti nek fi suñu rak yëpp nek fi mat lepp moo waral du bàyyi yitte yooyu di ñëw fii waaye mi ngi ànd ak njaboot gi ci xol mi ngi ànd ak ñoom ci dal mi ngi ànd ak ñoom ci lépp mi ngi leen di ziyaare mi ngi leen di ñaanal mi ngi sàkku ngeen ñaanal ci turu comité bi ni ma ko tàmbalee ñi ngi sant mbooloo mépp ci jafe-jafe yi yoon wi ci jafe-jafe yi jot yi di sant ñëpp di leen gërëm suñ galas dana ci dikkaat détaillé ko tudd kenn ku nekk jaar ci turam sant la gërëm la xamal la ni gis nañ la gis nañ li nga ci daj ñi ngi leen ciy gërëm ñi ngi leen ciy sant dinañ wax tuuti rek ci li nga xam ni moo nekkoon suñu sujet wu suñu temu conférence yi ñu waxoon ni tamit mooy nekk temu conférence bi fii bi ñu dikkee ci la ñuy waxtaan boobu ba léegi mooy jàmm ak naataange jàmm ni ko sëñ bi tekkee suñu yaakaar tey ak ëllëg mooy jàmm mooy jàmmu yàlla kon nag ñi nga xam ni sañ naa leen fàttali ñu xam ni jàmm mooy jaamu yàlla ku jaamu yàlla am jàmm jàmm mooy li nga yéene sa bopp muy dëgg ci yow nga bëgg ko ci sa yaram nga bëgg ko ci sa mbokkum jullit kàddu yi nga xam ne boo ko yëkkati ci sa mbokkum jullit mu leer la di bëggoo ko yëkkati ci yow ngay muslu di ko yëkkati ci sa mbokkum jullit nañuy waxtaan nañu yéeneente jàmm nañu yéeneente salaam nañu moytu di bëggal ab jàmbur loo xam ni bëggaloo ko sa bopp lu mel ni sax li xew fa ni li muy ndaw ndaw mooy jëkkante di jënd ngooñ mi ngir ñaan yàlla ëllëg mu cher nit ñi buñ ko soxlaa di ko jënd ci yow loolu sax du jàmm nañu yeneen te jàmm li ñu bëgg nañ ko bëggal suñuy mbokk nañ ko bëggal suñuy mbokki jullit su ko defee yàlla dana wàcce naataange te naataange nag jub na réew mi naataange won na kanam réew ngir liggéeyub sëñ tubaab yi man dama jàpp ni naataange yi fi nekk liggéeyub sëñ bi la yàlla defal nañu ko kon nañu te jàmm nañu yéeneente salaam nañu jaamu yàlla naataange gi ñu man ko jariñoo ndax dana wàcc buñ ko jariñoo dana wàcc buñ ko jariñoowul dana wàcc liy jub ci réew mi élection yi kenn ku nekk def ci ak mat def ci farata responsabilité état am na ci ndax moom lañ dénk jitte yépp kon prefet loolu ñu ngi la ci bàyyiloo xel di ci bàyyiloo xel njiitu réew mi mu def ci kemtulaay kattanam ngir jàmm am ci réew mi ndax ñun jàmm ñu rëy jig amuñu passeport beneen réew xaj na ku bëgg a génn génn waaye passeport Sénégal rek nga yor mënuñoo dem fenn suñu njaboot fi la nekk suñu sutura fi la nekk kon yàlla na fi jàmm am ñu mën a jariñoo naataange gi loolu ñor nañu lool boobu ba léegi ci li ñuy waxtaan bañ demee Mbàkke di waajal màggal gi loolu lañ fa doon waxtaane ba ñu demee dakaar loolu lañ fa doon waxtaane fii tamit loolu lañ fi yendoo waxtaane waxtaan yu baree baree baree bari génn ci yàlla na yàlla nangu ko wàcce ko ci njabootu réew mépp bala ñoo wàcce suñuy kàddu nag dinañ indi sëriñ xaadim yow mi fi nekkal suñu sëriñ suñu mag suñu xarit sëriñ Ibra Dior ci ñi nga xam ni teew nañ fi teewal fi njiiti réew mi teew na fi Ibrahima Fall adjoint préfet wu Tivaouane Abdou Khadre Diallo adjoint sous préfet Niakhène Serigne Mass Gueye maire Mbayeen Modou Ndiaye adjoint maire mbayen Babacar Thiam directeur de cabinet ministre de l'hydraulique Mansour Faye Maguette Diouf tribunal bu Dakar Cheikh Ahmed Tidiane secrétaire NFES and ak délégation bu mag Cheikh Tidiane lim na ko kon jarul ma ci yegg wat fof dina ci taxaw tuuti ndax dañ fi teewal sama xarit sama am di jam Mouhamed Fall Braya mu woma ma bëggoon a lol boppam lool ay yitte gàllankoor ko waaye bis bañ doon woote dakaar dafa bàyyi ay yitteem annulé ay rendez-vous ni Cheikh loo nekk maa nga ca mu rafet lool may sàkk kon yéen ñëpp tamit ngeen nangul ko ko lëre googu xam ni bëgg na jàppante ak yéen xam na ni ay nit ñu bëgg lu baax ngeen loolu mi ngi koy sàkku ci yéen man tamit maa ngi koy sàkku ci yéen maire monsieur le maire de la commune de Mbacké muy suñu maire ndax ñun nag Kajoor lañ dëkk waaye ni ko suñ jiili salaam waxee léegi dañu gàddaay jege ji sëñ sëñ Modou Moustapha dëkkal ñu Mbàkke ñu bokk Mbàkke moom moo fay suñu maire moo fay suñu kilifa kon ba pare bokk ci kër gi ndax ni ko sëñ Tuubaa boolee ak Madiène Soxna Amar bu sëñ Baytu Ndongo Joor bis set mu waxtaanal leen ko ngeen xam ni kon moom dafa dëkk ci dëkk bi dafa bokk ci dëkk bi kenn ëppale wu ko ci le maire de la commune de Sadio Pape Sidi Ndiaye doomu Alaaji Mbaye Ndiaye sëñ Baytu Ndongo Ndiaye ñu tudd ko sëñ Baytu Ndongo Joor bàyyam mu nekk maireu saajo tamit yabal na fi délégation bu am solo ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di tàllal seeni loxo barki dem bi ma toogee ak sëñ maam Gumba loolu ko wax dama ko ne lu ñuy def boo ci gisee lu la jaaxal boo ñu ko bàyyiloo duñ la laaj lu tax dootuñu ko def ndax ñun kilifteen ci lañ judd ci lañ màgg te ci li ñuy fës yéenee nekk lu ñaaw lu rafetul lu kenn xamul kenn duñ ci dégg tey jii nag teew gi ma fi teew dama fi teew Euh, ngir benn jëm mooy Mansour Faye ministre de l'hydraulique et de l'assainissement nekk aussi maire de la commune de Saint-Louis dafa am kóllëre gu am digganteem ak ñi nga xam ci njaboot gi nañu bokk mu mel ni ku toll ni kii sëriñ Moustapha Amar jéemul seen diggante yàgg na donc tey lii bu amee daf nan ma jugal nga dem nga teewal ma ma mais daf am lu ma ak ku melni serigne fallou serigne fallou Amar vraiment ñom seen yagna donc lool motax ñu teew ci fi ak képp ki nga ni Amar Amar ci dëkk bi serigne bi nak jox Mansour Fay, mu président de la république comme le monsieur le préfet moi, fi teewal le président de la république teewal fi ministre de l'intérieur dina ñew ci yobunte président bu may jéxal nak ma nga ñaan yalla suñu borom subhanahu wa taala ay at ma nga fi ñew di fi teewal Mansour Faye mu may ñu gudd fan may ñu wér-gërëm ñu ñëpp ñi fi teew ren yàlla ñu fi teewaat déwén ba bu ñu fi ñëwé insha rabbi ñu fekk waat gam gi seddale rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf merci beaucoup dafay bis boo xam ne bisub Cheikh Beyti Ndongo Dior waaye ñu tudde ko kenn ci ak njabootam ni ñu ko waxee muy soxna Binta mu mel ne kon tibbee ci poche bii la sottiwaat ci beneen poche bi mu nekk loo xam ne mbégte la ci ñun njaboot gépp képp koo xam ne tànn la nga bokk ci ak njabootam rek daf laa tànn ci tànnee fi kaw tànneef kon moom ku nu tànn la ci biir njabootuk Cheikh Beyti Ndongo Dior muy soxna Binta ay jikkoom itam mu nekkoon ab mu ñaakoon bu am solo ci sunu kër maam gi nga xamne fa la nekkon waye tam ci kër way wa taxawon fa taxaway bu am solo taxawu lol ay rakam taxaw won lol njabotuk Cheikh Bayti Ndongo Dior Amar gi waye tam nekkon ab kat ab kat bu sel ci sunu kër maam gi nga xamne fa la nekkon ba tay ji yalla dogal ñu saña ci pak bu sel bi di wax muy sunu di jimul muharram di jemul ñu ciy sant bu baax waye nak mbooleem ñi nga xam ne ñoo di ay turandoom ñu mën cee ràññee ñaar ñoo xam ne dañoo wane seen pas-pas seen pësteef ak seen jëf muy soxna Binta Amar moom sunu maam Serigne Ibnu Amar ak soxna Binta Amar moom sunu maam Serigne Mbaye As ñu wane seen pëstéef lool ci bis bii ba ñu ko yëgee ñu wax ne seen bisu turandoo wi daal kenn du leen ci man ànd ko ak ñun fa mu tàmbalee ba fi ñu taxaw di wax kon ñu ngi masé di leen sante bu baaxa baaxa baaxa baax di leen gërëm ñi ñaanal bu baaxa baax nak sunu maam joju nga xamné moy soxna Binta Amar sunu borom gën ko dolli ay leer gën ko gërëm ci liggéey bu sel bi nga xamné mom la liggéeyal maam ya ba yalla fayé ko tay payam gu rëy gii ak njaboot gi nga xamné ñom la ko yalla booleel ci biir askanu Darman ko sunu borom bolé leen pay gi. wa alaykum bokki julli fi dajé ñi leen di nuyu. yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di jiital ci nuyoo bi Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi ak mbokki jullit yépp mbokki taalib yëpp ñi nuyu mboolem askanu Darou Manko wépp di ko jaare ci sëñ Abdourahman di nuyu sunu nijaay ji ñu fekk سيد إبراهيم وانت نيس خالد ميكو في توغل سيد مامو سيد محمد موتلا أمار سيد إبراهيم أكمبوليم بوكي في دنيب نيجي هو تواي شا عبد الرحمن فال ميتوك سيد بوكو سامي في توك نيب أنا لنوي تميت سمنا تنبو بيدي كونسي سبيسيال على بريماتيور di mën a nuyoo tamit ci turu Mouhamad Boun Abdallah Dionne ndax yàlla moom la ma booleel may liggéey ak moom comme conseil spécial depuis trois ans wante di nuyoo ci turu Mbàkke Mbàkke gépp ndax mën nañ ni Mbàkke parce que nu dar man ko dañ fa saf sap mm-hmm. ndax seen wàccuwaay la suñu maam sëriñ may amar rek doy na ci exemple nga xamante ni yërmande la woon ku yàlla mayoon borom ijaaba ba képp ku yeewoo mbakki ba masan am jafe-jafe sa xel dina dem ci moom mhm. te boo ñëwee suñu borom suturaal la mhm. suturaal ko ba la nga ko doon sàkk ci suñu borom def mbokku jullit yi mbokku taalibe yi mbokku kilifa diine yi ak population jéemul yëpp mbokk darmanko yi nekk ci tund bi yëpp mu ngi leen di ziyaare moom préfet Makan waaye itam waxoon na ma ni ma bu ma ñëwee naa leen jox nuyoow président de la république monsieur Macky Sall ak nuyoow premier ministre monsieur Boun Abdallah Dionne toxtal si le ministre de l'intérieur M. Alim Ngouille Ndiaye ak gouverneur de région M. Amadou Sy et autorité administrative yi est ci région bi nous eh, sëriñ bi de ñu bëggoon wax ñëpp wax nañu soxla ci la Euh, ñoo jublu ci ay élection wax yi yenn say mu tangu trop waye toujours rek ñun ñi nga xamni ne dañoo gëm dañuy japp ni Sénégal jàmm rek mo fi am mais man yenn say demay recc di wax né jàmm du doy def lu bax itam du doy lu toll na ñaan wala tok di wacce ay Kamil di -hmm comme yakar bi nga xamné am nañ ko sax suñu imam sëñ euh, Saliou Amar nga xamné ne man daaw ba bu ko damay am cofeel bu reuy ci mom rekla ma ko séenee rek nitki fet tax jog taxaw ndax cofeel la nit ki bu yegg dara du ko sax tay ñu koy ziaré momi bu baax Saliou di ko bu baax mu wax fi yu am solo yu melna na yi fi seigne Tila la wax di sàkku rek comme niñ ko waxe rek ngeen ñaanal rew mi ndax dal am fi euh, senegal moom xam naa ken mënu ko tal lool mom xam naa ko gëm naa ko comme ni ko waxe rek ñaan du doy te demay faral di wax toujours ni kilifa diine yi euh mbacke mbacke yi ni sante si ak ni sante ñeneen ñi ñëpp maanaam këru diine yëpp ñooñ dañoo nekk samp yàlla maanaam ñoom daa mel na daal yàlla da leen jëkk teg ba pare soog a teg état ba nga xam ni ñoom fu ñu yëkkatee seen kàddu ci artu nit ñi nit ñi daañ bàyyi suñu ñaanee itam ku doon dëgër bopp la ngay dëgër bopp daa ci génn par force loolu mooy suñu force mooy force du Sénégal ñu bëggoon rek sëriñ bi ngeen taral ñaani ñaani natar na tar ba réew mi am jàmm dal ñu dugg ci si élection yi si jàmm ak salaam ci bisimilahi rahmaani rahim génn si si alhamdulilahi rabbi alamin loolu la ma préfet waxoon ni bu ma ñëwee daal naa gën a fàttali leen loolu ngeen ñaanal réew mi ñu am jàmm ak salaam maa ngi ziyaare mbokk yi fi nekk yépp di leen uh, balu àq soo fekkee ni wax naa lu ëpp maa ngi balu ñëpp xam naa ni uh, lu ci dëng rek ci man la bismillahi rahmani rahim allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa mbokki julli mbokki talibi fi dajje yeb dañuy tambalé sunu kaddu ñaanal cheikh Muntaka mbakke Khalifatul am li Taifatul murid suñu borom gën ko fe yagal lool ba limu naal ligéel Serigne Touba yeb mu sotal ko ca nu ànd di balu nit ñi ak ci jotaay bu yàgg bi ak xam ngeen ni yite yu bare bari ngeen bàyyi ak it li muhammadu taal mi léegi wax yoonu naqari wi ngeen jàngoonteel ba ñëw ñi ngi ci balu ñépp ak ci turu Serigne Ibrahima Dior Amar mi borom dëkk bii ah Serigne bi nag nam ko daan defe rek noonu la ko defee bin jubee màggal gii comité d'organisation bi yor màggal gi nam leen ko daan waxee rek doxal leen noonu la ko yeesal ànd ak ñun ba ci sëriñ Muntaqa mu ni ko kat nii lañ ko daan defee bis baa ngi boo nee bàyyi leen ñu bàyyi boo nee woyal leen wooyu bis bo loo ñu ci jox moom la ñuy def keroog bi muy dem mën naa ni waa kër sëriñ Bayti Ndongo Joor ñëpp la àndal ba mu demee sëriñ Muntaqa yeesalaat ndigal li ñaanal ñu ci kon loolu moo waral woote biiran ren jii ah comité d'organisation bi ñu àndaloon nag di liggéey liggéey bi ba mu egsi fii mën ni li ci ëpp ñoom la xaj na rek ni ma leen koy waxee man damaa nekk rek ci bopp bi waaye ñiy liggéey dëgg-dëgg feeñu ñu cant gi waroon na yu ci bari ñoom cant nañ ko man nag maa ngi leen di sant ci turu sëriñ bi sëriñ Ibra nee na ma woon bu ngeen fi dajee ngeen santal ma mooy njaboot gi nga xamee ni ñooy doxal màggal bi sëriñ bi mu ngi leen di sant bu baax a baax ca comité boobu sëtaati sëriñ bay Ndongo Joor ñu ngi ci taalibe yi ñu ngi ci mën naa ni sax ay jullit kese rek ñi ngi ci journaliste yi ñi ngi ci ku ne mi ngi ci biir kon yéen ñëpp sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax a baax kon nag maa ngi jéglu ñëpp lépp loo xamee ni dëng na rek sëriñ bi de na ma ko waxe woon moom matal na lépp maa ngi sant comité d'organisation bi yëpp ma yëf yi damaa tiim rek sëriñ xaarim na nanga ma jottalil sëñ bi cant comité d'organisation bi ndax jàpp nañu jàppale nañu loolu mooy lan mooy dem leen doxal maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen ndeyjoor maa ngi seen càmmoñ kon nag sëriñ xaarim na nga ñu jot li cant yooyu yëpp wa axiru daawana alhamdulilahi rabil alamin ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Fallou laa sa abdoulahi xaadim rasul dunya wa uxra ismatan wa nee na muy ñëw di waxtaan ak yéen tuuti ci mbiru àddina. màggal gi ñu màggal yëpp de. nee na màggal gi ñu màggal yëpp. màggal gii day màggal goo xam ni. day ma màggal gii day màggal goo xam ni. ay yu bare mën nañ ko fi jëlee. nee na mën nañ ci jàngee ay leçons yu baree bari. leçon bi ñu fi njëkk a jàng. nee na leçon bi ñu ci njëkk a jàng. tubaab di ko wax dissertation. tubaab bi di ko wax dissertation. mooy lu wax. nee na mooy li sëriñ jiili Abdou wax kilifa dafa amatul nee na kilifa dafa amatul ku kilifa nee na nag ku amul kilifa ah iblis di sa kilifa man de sëriñ ibnu amar nee na moom mii sëriñ ibnu amar moo ko yar def lépp ci def lépp ci moom moo ma jëlee nee na moo ko jëlee ndar yar yar ma takkal ma soxna nee ko ba mu dencal ko soxna waaye de lii may wax de nee na lii muy wax mën exemple mën na ci def ay exemple ànd naa moom ci magam ju baax ja sëriñ Aliou nee na ànd naa moom ci magam ju baax ja sëriñ yu Amar muy waajuram buy dugg ci buntu nee na buy dugg ci buntu kër ga day simmi mbaxanaam simmi ay dàllam ñëw toog wax ak magam ñëw toog wax ak magam benn bés nee benn bés toog dafa toog ak moom. mu ne ko Abdou de ci yow Abdou Diouf. mu ne ko Abdou Diouf président de la république moo ma yónni ci yow. mu ne ko lu mu bëgg. mu ne ko lu mu bëgg. mu ne ko maa yóbbante woon ci yow. mu ne ko daf maa yóbbante woon ci yow. def nii ci loxoom. nee na mu def nii loxoom ci jibaam. génn takk bu rëy. génn takk bu rëy. ni ko Abdou Diouf président de la république moo la ko jox. nee na nga ñaanal nee na nga ñaanal ko. xam nañ Serigne Aliou juboo naa suñu borom. nee na ñëpp xam nañ ne nag Serigne Aliou juboo naa ak borom yëf yi. lu mu wax yàlla def. lu mu wax yàlla dina ko def. loo ko ñaanal rek ibnu am. nee na nag Serigne Aliou delloo ko yëf yi ne ko ibnu loo ko ñaanal dina ko yàlla dina ko def. loolu moo nekkoon ak mag ñi. nee na loolu moo nekkoon ak mag ñi. ma ànd moom ci kër Baye Baye Baye. moo ànd ak moom ci baar Baye kër sëñ May. nag moom ci du ma ko fàtte ci oto ba. nee na du ko fàtte ci oto ba. boobu Ford lañu ñu yor. boobu la ñu yor ci yooyu jamono. nee na bi ñu àndee. bi ñu duggee ci kër gi. nee na bi ñu yegsee ci kër sëñ May. bàyyi sëñ May dafa muuñ. sëñ Ibnu Simi mbaxanaam toog. waxtaan ak moom. ma bàyyi leen. mu bàyyi leen. ñu waxtaan ba nopp ñu daal di ànd demaat. jox nit nee na jox nit cër. jox nit cëram. jox nit cëram. du tee nga jot ah, tax nga ñàkk li nga moom nag. réew mii nag. réew mii nag. dañoo nekk ci aqbaaw zaman gën gi bon jamono. nee na nag dañoo nekk ci mujjug jamono ak jamono ju bon. lii Serigne Djili nee na lii Serigne Djili Abdou Salaam wax. depuis ba internet amee ba tey. nee na ba internet amee ba tey. ak média. ak média. réew mi nag ci la tas ci la yàqu. dañoo defe yoon yoon wi dafa am sart yoonu murit dafa am sart. nee na nit ñi dañoo defe ni yoon yoonu murit dafa am sart. dafa ni ku la dàq théorie. nee na dafa ni ku la dàq théorie. ku la dàq wax. ku la dàq sol mbubb mu rafet. ku la dàq sol mbubb mu rafet. moo la raw ci yoon bi. ah yooyu nag ay naxe la. li fi sëriñ bi ba bawoon moo fi ne ba tey rek. nee na nañu àndandoo waxtaan si moo bi am ni laay jami an wala tafaraqu nekk benn te ngoy ci buumu yàlla gi te bu ñu teqalikoo dar manko nee na dar manko boo ci defee dissertation nee na boo ci defee dissertation dar manko mooy lan nee na dar manko nag mooy lan xanaa ñi dara yonent bi sallallahu te duñ tàqale koog moom doy na sëkk lool doy na sëkk rek kon nag war nañu manko ñun ñii kon nag ñun ñii ñëpp war nañoo mànko ku jiitu jiitu ki jiitu jiitu ña ca topp topp ca ña ca topp topp ca waaye du yàqal kenn dara ci ah, ca la war a am loolu loolu moom li ci jëli sëriñ jiili Abdou Salaam wax ci leçon yi mu ci jàngee loolu bokk na ci doy na sëkk mu ñëw ci sëriñ may nee na nag mu ñëw ci Cheikh May sëriñ ñëpp xam nañ ci liggéey rek lañ ko xam ah nee na ku ne xam na ne Cheikh May ci liggéey rek lañ ko xam c'est kat ku liggéey séddu nee na nag képp ku liggéey danga nga séddu sëriñ Aliou da daan di wax nee na sëriñ Aliou way juróom da daan wax ni def muy seen waajur nee def leen liggéey muy seen waajur jaamu yàlla di seen lépp nee na jaamu yàlla di seen lépp nee na nag kuy liggéey da ngay dindi tuuma liggéey àndandoo liggéey bàyyi wër wi bàyyi wër wi bàyyi théorie yi am ba tey depuis am ba tey ci la réew mi yàqu kon nag kon nag nañu góor nañu nee na maase delluwaat takkuwaat jaajuwaat yeesalaat sunu njëbbal jox ko Cheikhul Khadim ndax ndax Serigne liggéey dong lañu sant. liggéey kese lañu sant. ak jaamu am na ay site yoo xam ne ay dëkk yoo xam ne bi ko Serigne bi di def. nee na am na dëkk yoo xam ni bi ko Serigne Touba sanc muy Ndindi. muy Ndindi. muy Daaru Khadim. muy Daaru Khadim. muy maanaam Touba Belal. muy Touba Belal. dëkk yooyu yëpp bu ko sant loo ak Bagdad. ak Bagdad. sëriñ bi leen doon wax di leen foofu. ne sëriñ bi da doon wax nañ fay liggéeyi. leen fa liggéeyi. di fa liggéeyi. bu àjjuma ngeen ñëw fii julli si. bu àjjuma jotee ngeen ñëw ci jumaa ji jugu si. kon nag gars yi nañu dellu ci tool yi te liggéey te xam ne liggéey rek am njëriñ. lu waaye bëgg liggéey la ko mën a may. nee ma ñëw nag ci gouvernement bi. nee na mu ñëw ci ñi nga xam ne ñoo fi teewal ñi ci réew mi ak gouvernement bi. gouvernement bi duñ leen di sant. nee na gouvernement bi dañ leen sant. nee ay nit lañ yoo xamne wacc nañ nañu. nee nit. amna lo xamne bu la ko defalee war nga ka sant. nee amna lo xamne bu la ko defalee war nga ko sant. état dafa état dafa fort. Ibrahima Faale ngi nii di préfet. nee na Ibrahima Faale ngi ni di préfet. Diallo jallo ngi ni di sous préfet. primature ngi ni ñew na fi. nee primature yonne na fi. hydraulique ngi ni nee na hydraulique ngi nii. téye woon seen jox joxuñu forage ndax ndax gi dana jag. ah bu ñu téye woon seen lépp jox ñu ndox màggal gi manqué ndox ndax yëf yi dina jag. waa hydraulique bu ñu joxul woon ndox ndax màggal gi dana jag. waa hydraulique bu ah préfet bu joxewul woon ndigal ci CDD bi ndax yëf yi jag. kon dañ leen di ñaanal. yàlla yokk seen daraja. nena président nee na bu ngeen yeggee ngeen wax président fii moy fii mooy jéemul xolu kadior seigne Baara li li imam wax léegi nee li imam serigne salih Amar wax léegi nee na sëriñ Baara nee na nee na sëriñ daraja bo xam da ko don ñaan suñu borom amna daraja ju mu doon wut ci suñu borom juróom-ñaari at ñaan nako fu nek ne na ko fu ne بيوم فناني في كي دك بي لا كوسن بروم جوخ كين واخوما نك ما فكي نينا كين واخوكو موم مي مو فكي واخنا لي سيني نمر مار موما يال نينا واخنا لين ني سيني ابن موكو يال سيني عبد الله نيونا في وار بن اوتو بني واخ ديس نينا سيني عبد الله خات مباكه موم شيخ القديم نيونا في و يك يك سي اوتو بني واخ ديس بابا دا فا سوغا جوب خلافه نينا بابو داي سوغا نيك خليفه جنرال دي موريت نينا نيو في سي كير سيني ابنو daa tëdd nii ñu la la ay mbàjj. nee na daa tëdd ñu la ko ay mbàjj. bi bi mu toogee ab diir. dafa ni Cheikh Ibnu maa ngi dellu Pekes. nee na dafa ni Cheikh Ibnu maa ngi dellu Pekes. suñu borom li ma waxoon. nee na suñu borom li mu ko waxoon. def naa ko def na ko. nee na ba mu ne ko waxoon nag bala ngaa def dara ci xilaafa gi nga toog na nga dem jéemul siyaara ji. nee na si la dellu Pekes. keroog reer ya nee na keroog ya bañ ko defaree ba noppi bañ ko defaree ba noppi ci oto sëñ ba lañ ko def ci oto sëñ ba lañ ko def yóbbu jox ko kon nag ngeen xam ne fii jéemul gii ngi fii sëriñ Saalihu Mbàkke ibnu Xaadim Rasul bi mu nekkee ci xilaafa gi bi mu nekkee ci xilaafa gi ziyaare darmanko yi bi ñu demee dafa ni sëñ Aliou yan wi diis na lool yan wi diis na lool bëgg nga ñaanal waaw damaa bëgg nga ñaanal ma sëñ Aliou yan woyof lool sëñ Saliou ko ko wax sëñ Saliou ni ko Mbàkke lépp dana woyof kon nag jéemul lépp a ngi fa Abdourahmane Tilala sëriñ Abdourahmane Fall Tilala di kilifa lislaam gu di kilifa lislaam gu mag di sunu mbokk di sunu mbokk di seexu sëriñ Ahmad Bamba Xaadim Rasuul Cheikh Abdourahmane Tilala Cheikh Abdourahmane yow sang ci yoonu darmanko nee na yow sang nga ci yoonu darmanko wama sahibna ila bi ma na wama sahibna ila bi ma alim na li xam ci yow la ñuy seede waaw nit ki de lu mu xam rek lay seede li mu xam ci yow rek lay seede kuy góor nee na kuy wut góor yow bu ñëwee ci yaw am kersa lool ndax yow góor nga lool sëñ Ibra nag. nee na sëñ Ibrahima Dior Amar. sa diggante ak moom. sa diggante ak moom. daa mel na mburu. daa mel na mburu. moo xam ne daa mel na suukar. daa mel na suukar. bu ñu seeyal ci ndox. bu ñu seeyal ci ndox. sa diggante ak moom noonu la mel. sa diggante ak noonu la mel. amoo ci sago. amoo ci sago. waaye dañu lay ñaanal. dañu lay ñaanal. Serigne Touba mi mën fay. Serigne Touba mi mën fay. fay la fay la. damaa ànd ak jigéen. nee na dafa ànd ak jigéen. nee na ñu àndal sëñ Abdou Khadir Mbacke. di fa ñaanlu doom. ma ànd ak ku tawat. nee na mu ànd ku tawat. muy ñaanlu faj feebar. nee na muy ñaanlu faj feebar. sëñ Abdou Khadir. nee na sëñ Abdou Khadir. ki faj feebar ma taxoon a jóg. ki faj feebar moo ko taxoon a jóg. ki bëgg doom taxu ma ki bëgg doom taxu woon ma jóg. sëñ Abdou Khadir laaj biteel ca biir. nee na sëñ Abdou laaj biteel ca biir. daal def nii ay tala tànkam. nee na daal di def tegalee nii mu tegalee tànkam. daal di téen. daal di bëgg doom. nee na ki bëgg doom. nee ko su may ñaan. nay wax amiin. muy ñaan muy ñaan. tuddul ki ma fa yóbbu woon tey faj feebar. tuddul ki mu yóbbu woon tamit faj lu feebar. bañ demee kooku amul woon doom. nee na kër yoon faj lu feebar amul woon doom. ka doon ñaan lu doom. ka doon ñaan lu doom. amul woon doom amul woon doom. mu am fukki doom. mu am fukki doom. ka doon faj lu feebar. ka doon faj lu feebar. ba léegi feebar ba wérul. ba léegi feebar ba wérul. nee na yàlla nañ yàlla defal ñaan gu nangu. nee na yàlla nañ yàlla defal ñaan gu nangu. ci doole Cheikhul Khadim amiin nee na ñu ngi fas ci ñaan gi sañ Ibra Joor Amar mii di xalifab jéemul di doomi ma di di taw maam Ndonga Joor ci maam Baye Aliou nee na di taw sëriñ Aliou Amar nek fi sen sëñ Ndonga jor nek fi tey sëñ Ndonga jor sunu di sunu mak, yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na ko yàlla yëkkati ci boppam te am nañ ci yaakaar te am nañ ci bu wér nak rajim amin amin min